mu nekk benn assemblée nationale boo xam ni d'une manière générale dafa global ci lu ci tey jii ñu gis ni lan ngeen waajal ba tax ngeen composé noonu comme li euh, député ni ngi ko defee. mais nous sommes allés là-bas nous avons dit que nous sommes nous sommes allés là-bas pour représenter le peuple. Mm-hmm. le peuple c'est pas seulement les enfants. c'est pas seulement les juges. Mm-hmm. c'est pas ay mag. Mm-hmm. le peuple. juge ci avocat ci. mag ci ndaw ci. ah jigéen ci góor ci. ah handicapé physique ci. ah. handicapé moteur a ngi ci lu nekk a ngi ci donc on a fait un melting pot ñu fexe ba chaque couche sociale am sa représentation dem na ba ku sëgg sax mm-hmm. ñëw assemblée surtout ah oui mm-hmm. ce qui que loo leen défendre défendre mm-hmm. ah loo xam-xam kumba kumba gën la xam boppam ah loo xam-xam sàmba sàmba gën la xam boppam la nga fa nar a toogee di leen waxal ñoom ñoom ñu ñëw fa toog waxal seen bopp mooy gën ah c'est pourquoi ñu laal ñu laal ñu toutes les couches sociales au a kenn ku nekk mën a représenter sa askan mais dafa am benn mbir bi nga xam ni boo déggoon ci biti micro ñu bëri askan bi euh, lan nga mooy njëriñu député yi foofu ci assemblée lan la ñu war a njëkk def ñu ci ëpp boo boo laajee ah, dañuy dañuy wax loi d'amnistie bi gis nga sax fan yi am na coow ba seen naataango honorable député maître Aïssata Tall Sall di ci wax tey jii lan moo war a nekk seen première euh, li lu mel ci taxawaay bi nga xam ne mooy loi d'amnistie bi. non xam nga dafa yoo xam ñett yooyu yëpp c'est des priorités. ñetti mbir. Mhm. Mhm. yëpp c'est des priorités. surtout benn bi. Mhm. ñaar yi sax laay mën a wax ñaar ñi ñoo ànd ñoo tax. mooy la la loi rectificative des finances. la loi des finances rectificative. boobu moom il faudrait que ñu def ko nu mu gën a gaaw. pour permettre à l'État. pour mu exercer le défi ak euh, janvier. ensuite la loi des finances. il faudrait qu'on ait un budget. surtout ah adapté au référentiel. pour ñu mën a exercer en deux mille cinq pour. subvenir aux oh, besoins du peuple. mu ngi ci question yi sax. Mhm. yooyu. Mhm. mais yeneen ñaar yi ci des. Mhm. mais c'est les besoins du peuple. du peuple surtout. le peuple. la ñu jël ay alal alalam. déggoo ñuy wax ni benn compte boo xam fekk nañ ci mille milliards. milliards surtout waaye. ak yeneen nag les mille milliards du Covid et consorts. mais loolu peuple bi xaal alalam job bi dafa bëgg mu dellu si. Ah loolu mënuloo ko lu dul teg la haute cour de justice. donc lu nu war a def la. peuple bi la fa nekkal. Mm. peuple moo soxla lii. Mm. dañ ko war a tegal la haute cour de justice mu fexe liggéeyam du xaalisam dellusee. Mm. ñaareel ba. -hmm. kenn ku nekk toog na ah. -hmm. il y a deux ans en deux mille vingt et un. toog image bi ñu ci gis bi gën a flagrant. mooy ñu toog gis nit sukk ci oto. -hmm. armé dóor xaleel comme un animal tel bal mu daanoo. Ah on a vu un numéro neuf. avec son kalachnikov muy dox. ànd ak set euh, des supposés forces de l'ordre. surtout mais loolu am. ñu rey ay nit ñaata. làggal ay nit ñaata. jàpp ay doomu aadama dugal leen ci kase bi arbitrairement. Mm-hmm. mais loolu dafa wara leer. Mm-hmm. le peuple en a besoin. Mm-hmm. léegi nag ñoom ñu ñëw couvrir ko par une loi d'amnistie. prétexte comme quoi loi d'amnistie bi way euh, Ousmane bénéficié wu na ci. Euh, Diomaye bénéficié wu na ci excuse quand je dis Ousmane et c'est une habitude comme pardon. parce que c'est des gosses yoo xam ne maa leen yaat. <laughs> du bi def na. je te jure, euh, mm-hmm. quand je les appelle comme ça, ça leur fait Donc, Ousmane ak Diomaye. Mm-hmm. Ousmane quand on est venu lui, lui la proposition que dañuy def une loi d'amnistie pour nga génn lu mu leen wax je ne suis pas d'accord bëgguma. Mm-hmm. li ngeen teg sama kaw c'est arbitraire tegg leen ko ma dem sama yoon. keroog bi ñuy voté loi d'amnistie bi lu mu wax. bu fekkee crime de sang yi da ci kenn du ko voté. kenn du ko voté surtout dégg naa nag benn waay je ne peux pas l'identifier xaw ma son nom. muy def propagande ak di def euh, comment qu'on l'appelle ça wax wax yoo xam ne dara du ci dëgg mu ne Ousmane Sonko moom ci boppam moo wax ni mhm. waxtaan naag Macky Sall waxtaan yu bare mhm. ñetti point lañ jubawul mhm. xoolal ma wax ju wax jooju ñetti point lañ jubawul alors que Ousmane clairement à Azalaï yónnee na ma ndaw ñu waxtaan sur trois points waxtaan bi dafa axé sur trois points ñetti point yëpp amul benn buñ ci juboo waaw xoolal kii ñëw taxaw di wax naan waxtaan laak moom waxtaan ñu bare mm-hmm. waaye ñetti point yi jubóowunu mm-hmm. xoolal manipulation boobu surtout ñetti yoon mm-hmm. muy wax sàkk il faudrait que ces gens là arrêtent xam ni le temps de Macky est fini on est au temps de la reddition des comptes si tout s'est très bien passé rien ne surviendra au cas contraire képp koo xam ni def nga la malversation C'est comme ça que nous avons vu. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, Inch'Allah, mm -hmm. nous allons faire tout juste le boulot comme cela se doit, mm-hmm. parce que nous, on en a fait un sacerdoce. Un sacerdoce. Oui. mooy assemblée bi. moo war nekk assemblée bi gën ci. assemblée yi am dégg nga. le président de l' assemblée nationale. que ah je au passage et que il faudrait que l' soit la maison du peuple. donc loolu rek ensuite acte bi mu acte bu rafet. mooy ñu fal ko mu dem rendre visite à tous les anciens présidents pour pour jële fa ay conseils et conseils. Mhm, donc maa ngi koy félicité mhm. en tant que député. en allah mu nekk acte bu am solo daanaka jamono guñ toll nii xëy na dafa nekk actualité bi nga xam ne daf ñu dab muy dañaa gis ne ay jamono ngeen defoon benn coalisé muy coalition bi ñu wax yeewi askan bi seen leader du Ousmane Sonko am kàddu nga xam ne yëkkatiwoon ko publiquement ñëpp dégg mu défendre ki nga xam moo di Barthélémy Dias ci xam ne ni Macky Sall daf ko bëgg a yàqal lii di politiquement waaye duñ ko nangu wax ci kàddu yu am solo tey ji ñu gis ni battu askan ñenn ñi denn ñi lan moo waral ba mu nekkee ci jamono bi ñuy posé candidature kenn kenn rajo ko kenn wax ci dara te ñu dem ba mu nekk député ñu taxaw dind ko carrément jaaree ko ci ministre de l'intérieur ministre de la justice ñëpp xam nañu président Ousmane Sonko ministre premier ministre moo ko coiffé ndax santaane président Ousmane Sonko la en tant que député euh, wala nag da ngaa gis ni ministre dafa def liggéeyam ba def ba sukkandiku ci ay article mën a rajo kii di Barthélémy waaw wax ci ñaari question la dañ ci rapport benn bi la mm-hmm. njëkk mooy le soutien. Mm-hmm. am moment boo xam ni la procédure mi ngi dem on avait un point de vue. Mm-hmm. ensuite euh, l'autre là Barth était notre allié. surtout ndax bu nekk woon suñu allié sax. du tee ñu jàppale ko parce que loolu la ñu gëmoon mhm, mu bénéficier d'une présomption d'innocence mhm. mais bi ñu demee mhm. ba nga xam ni léegi def nañ ko condamnation mu def ay appelam yëpp ba mu àgg aboutissement bi ba ñu condamné que fermement après lépp appel yëpp donc c'est définitif mais ñun dañ ciy maandu dañ ciy noppi d'accord c'est une décision de justice maintenant à savoir pourquoi les gens n'ont pas réussi au moment où il a sa candidature vous savez quand il a déposé sa candidature ñun n'avons pas réagi parce que nous savions mm. mais am na benn coalition bu mm. def euh, kii au niveau de du conseil constitutionnel si waaw conseil constitutionnel wax xoolu dossier bi mm. dafa que tu n'es pas habilité ah, mm. à déposer un recours donc ñun suñu déposé un recours jamono jooju même chose lan ñu doon mais ñun on le savait déjà mais kan moo waroon déposer de recours DGE mais la DGE ñoom Barth daf leen jox casier judiciaire bu vierge mhm. am na koo xam ne deful liggéey bu vierge bu vierge hmm. kan kan am na ko deful liggéeyam au point yu Barth am casier judiciaire bu vierge hmm. mais DG bu ko ba Barth joxe carte euh, casier judiciaire bu vierge hmm. mais il ne peut qu'en tenir compte léegi mu bàyyi mu jàll ensuite la le code électoral moo wax ci condamnation am avant ñuy dem malheureusement au niveau du conseil constitutionnel ñun coalition mënuñu def recours mais biñ ci génnee dem élection ba mu jeex léegi mu falu nekk député là c'est la constitution qui parle et là c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parle ñun nag règlement intérieur Assemblée nationale en son article 51 le dernier alinéa wax na ni koo xam ni dañ la condamné pénalement à une peine ferme mënuloo nekk député dañ la war a radier le président de l'Assemblée nationale a été saisi par qui de droit mm-hmm. le ministre de la justice mm-hmm. mu def li mu war def léegi nag ndax Ousmane Sonko joxe instruction mm-hmm. ndax keneen joxe instruction pourquoi aller jusque là-bas pourquoi ne pas s'en tenir simplement au fait que kii warul nekk député ministre général la mu nekk député ah lu ñu ci tuddee Ousmane Sonko lu Hmm? Hmm. Ousmane Sonko du toog ba wax wax baat. Ah, tax ba tudd ko. pourquoi aujourd'hui ñu ñoo di ko wax. Hmm. donc qu'on s'en tienne à la chose. le ministre a fait ce qu'il devait faire en se basant sur la constitution. et sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. nous Assemblée nationale. par le biais de notre président. nous l'avons radié en nous basant uniquement. sur notre règlement intérieur qui dit à son article 51. dernier mm. koo xam ni sur le plan pénal condamné na la fermement mm. mënutoo nekk député ñu appliqué loolu un point intérieur kon da nga jàpp ni daal ñàkk wax Ousmane Sonko ak gars yi li ñuy wax ni kon campagne de diabolisation ko mën a jàpp jii mën nañ ne dañuy ñëw ci li nga xam moo di budget 2024 gis nañ bu baax a baax daanaka mën nañ ne nattoo nañ ba natt sax li nga xam moo di budget 2005 de waaye li ci li ci am mooy jamono guñu toll nii gis nañu lenn ci li ñu doon def am na ci loo xam ne daanaka état bi fi jógoon dafa def lekk na ci wala boog jot na ko utiliser ndax ban matuwaay ak ban taxawaay ngeen am pour fexe la ba jéem a entamé balaa li nga xam mooy 2024 bu jeex ngeen mun cee def liggéey ba. mooy mooy moom laa lay wax la loi des finances rectificative mhm. bi war a ñëw. Mhm. qui permet à l' état d' ajuster et de pouvoir survenir. Mhm. de la population. jusqu'en fin 2024. ensuite ñu soog a dugal une loi des finances. ah euh, une loi des finances initiale. Hmm. pour mën a teg un budget boo xam ni ah ce sera hmm. en fonction de nos prévisions et de nos objectifs ah. incha allah pour pouvoir subvenir aux besoins loolu la ci ñu jotagul ko nag pour xam lu ci nekk pour xam lu ci nekk tey jii même boo xool ci wàllum budgétaire yeeg euh, jafe-jafe bi nga xam ne gis nañu ci coow FMI bi banque banque mondiale ban taxawaay ngeen war a mën a am ba fexe rétablir waat lépp donte sax gis nañ ñoom ñu ñëwaat nañ félicité leen ci gouvernement bi yes bi ci dëgg bi ak leeral bi ngeen xam ne war ngeen ko ci askan mi muy jub jubal jubanti bi ba ñoom sax pare nañ pour jàppale leen mais yéen en tant que député ban liggéey ngeen pare pour gunge état bi ba fexe muur jafe-jafe ba askan bi gis seen bopp li alliés itam gis seen bopp baax a baax. xam nga euh, la relation. kii ñun mënuñu ko war a suivre. Mhm. et voir. Mhm, mais nous commencerons par euh, louer le courage ah. du gouvernement. qui après avoir fait un état des lieux. a rendu compte au peuple. ci li fekk surtout. en disant que ni le budget a été truqué, à tout de même la dette qui est aujourd'hui à plus de 130% du, du, PIB, alors qu'on déclarait 69%, 68%, mmh. tu sais, c'est pas sérieux. Mmh. Donc, il faut lui ce courage-là. Mmh. Ensuite, nous, nous le constatons. Mm-hmm. Nous, nous ne pouvons que les accompagner mm-hmm. sur le plan du, du budget. Nous pouvons établir un très bon budget qui viendra. Diar, Fimoura, Diar. Hein? Si nous avons un inconvénient, nous taguons, diapelons. ensuite li nga xam nag moo ci sunu rôle incha allah dina ko jouer au moment opportun. macha allah tey jii ba léegi ci wàllum ah, euh, budgétaire la ñuy ñëw ndax gis nañu mën nañu Sénégal li mu leb dafa bëri en tant que tey jii euh, yow mi nga xam parlementaire nekkal fi tey askan bi euh, gis nañu nekk na ay taxawaay yi nga xam ne war a am solo la waaye tamit yan démarche yi nga xam tey jii di ngeen ko mën def fexe la tout ba askan bi dañ ci mën a gis seen bopp ba tey mun nañu ne comme ni ma la ci question boobu fexe la lépp loo xam ne du am métti métti ndax gis nañu li ñu def dafa bari trop dafa ëpp te mën nañu ci yenn sources yi nga xam ressources yi nga xam moom la ñu war mën a jëfandikoo taxawaay ban ngeen ci mën a am ba Sénégal xëy na amaana dina ko fay te du am benn impact bi muy def ci même réew di Sénégal. on ñun mm-hmm. député je crois que euh, euh, wax ci loolu. Mm-hmm. dafay xaw a gauche. Mm-hmm. li war bu war kooku c'est du ressort intervenir interpréter xool. toppatoo budget bi voté ko ba pare topp exécution bi mais damay yabal nit ñi mhm. ci déclaration de Ousmane Sonko surtout le jour bi nga xam ne mu ngi doon def un compte rendu mhm. sur l' état des lieux mhm. ce qu'il a dit dafa tiital jaaxal sénégalais yëpp surtout mais les sénégalais les sénégalais n'ont pas écouté la fin de son discours bi mu waxee ba pare dafa ne lii yëpp ñu yaakaar ne sax ñu ngi restio sa ndekete ñu ngi troisième sous-sol ah mais néanmoins ëlëm nañu mais jaaxalu na surtout fa ñu jëm dina fekk Mm. mooy te ñu yegg fa il a dit encore mm. jëm xam nañ ko te incha allah rabbi ah, ak jàmm donc dinañ ko maîtriser mm-hmm. ñun nag nous allons les accompagner dans la limite de nos responsabilités mm-hmm. nga xam ne sur le plan de notre responsabilité mm-hmm. àgg nañ fa ah dina leen jàppale à la kuleal yi incha allah yàlla baax na tey jii def euh, mën nañ ne gis nañu annoncé ne du yàgg dara ne dina dem ensemble fa seen a jàkkaarloo yéen pour li nga xam moo di politique générale am bi tant que mu nar a ñëw ci yéen ñaar mu ñëwee ci premier ministre mais mu nar a ñëw ci yéen chef de parti la la mooy seen taxawaay moom. Hmm. mooy loolu nga wax ni mooy suñu problème. mooy seen problème. que les gens ne nous ont pas compris. surtout. on est dans le parti. Mm. il est le chef du parti. Oui. quand il dit garde-vous nous nous mettons tous au garde surtout. Hmm. mais là où il vient. Hmm. c'est un premier ministre. buy def li nga xam ne c'est son devoir. bu ko constitution bi sant à savoir venir faire sa déclaration de politique générale hmm. devant les députés que nous nous sommes hmm. nous députés hmm. représentons le peuple buñ ko dégloo ñu analyser xool waxtaan critiquer def ay suggestion waxtaan sur le la déclaration de politique générale dañu koy def comme bu fekkoon ni suñu ennemi mooy présenter déclaration de politique générale kenn du ko diw bër temps mm-hmm. kenn du ko caresser dans le sens des poils nous allons faire notre boulot comme cela se doit mm-hmm. parce que si ñu ko defulee di ko raay ak di ko banbaral mm-hmm. bis bu ñu delloo ci kër ga nga xam ne moo fay kilifa il dira vous m'avez déçu je ne suis pas venu là pour ngeen may raay ak di vous êtes là pour le peuple moi je suis venu proposer une chose comportez-vous en responsabilité euh, voilà donc ñun ne vous en faites pas su ñëwee def déclaration de politique générale dinañ ci def lépp li ci war mm. après nag bu ñibbee suñu kër bu ñibbee ba suñu kër après ñu nekk ngeen nekkaat xarit no mu nekk bu chef chef <laughs> chef de cantonnement ak tey jii dafa gis nañu assemblée ginnaaw ci ginnaaw muy quatorzième législature bi fexeeroo ngeen la tout laa dugal li nga xam ni moo di fexe def jéem a lu jëm ci wàllu wàllum l'homosexualité mm-hmm. euh, ñu gis ni mu juróon coow parti gauche bañ ku ci mel ni parti pouvoir bañoon ba tëdd ci naaj ba mu mujj ne jàllul ñu dem ba si biir gis ni yéen am ngeen majorité commencé ñoom ñu dugalaat euh, ñu dugalaat lumière commencé di ci di ci wax mu nekk benn mbir ñu ñu bëri sax ne lan moo waral Sénégal ñi lànkoo ñoo ñoo ñëwaat ba tey nangu tey ji yàlla may leen ngeen yor pouvoir en tant que comme 130 députés ndax loi boobu pare ngeen pour criminaliser ko wala. xam nga li wax ni ñi bañoon daaw bu ñu nangoo tey seen i pexe jub. Mhm. d' abord da xool lu indiwaat wax jooju dans le lu indi. lu indi wax jooju. Mm-hmm. dans le débat politique. surtout mm-hmm. on était en campagne électorale. pour les législatives. Mm-hmm. am benn candidat boo xam ni il faisait une excellente campagne. surtout d'autres nag tiré sur lui. quand ils se sont rendus compte que ñoom ils sont passés à côté ils font pas le bon discours. ils ont voulu le détourner de ses objectifs. ñu introduire loolu. la réponse est très simple. sàmm sa kàddu. bi mu defee. appel fale euh, euh, à la place de l'obélisque mhm. kan ci ñoom moo dem taxaw foofu kenn personne n'a mhm. osé il n'y a que Ousmane Sonko qui y est allé mhm, sa parole mooy son image ah ensuite mais on a des priorités loolu lu nu war a def la mais du priorité priorité yi mooy le budget d'abord bu ñu xam nuy rouler suñu alal ji sànk ñu teg la haute cour de justice lijjanti ko suñu doom yi dee ñu teg dindi la loi d'amnistie pour mu enquêter xam ñan ñoo ko def attaquer le panier de la ménagère bis bu nit ki mm. amee lu mu lekk mm. am lu mu naan mën a faju mm. doomam jàng mu am sécurité mais maintenant mu des ñu protéger leen ah et dans cette protection ah la loi bi nga xam ni mooy criminaliser homosexuel xëy na ci yi jiitu la criminaliser oui pourquoi pas ah, punir plus sévèrement pas ne pas arriver au crime mm-hmm. mais loolu yëpp dañuy étudier la mm-hmm. mais man maa la wax nii la mm-hmm. bu dul ñun keneen du ko fa def keneen du ko fa def mais bis bu jotee n'importe quel député de Pastef mën na ko def kon daal sénégalais seen xel mën na dal bu baax baax ci côté boobu ah